saa yu ngeen déggee kàddoom wala ngeen seen jëmmam ndigal ko yëkkati te ndigal li di bàyyeekoo ci xalif général de Mouride Serigne Touba Cheikh Serigne Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér Serigne Mouhamadul Mountakha mu ngi nii toog feggoo ak rakkam Serigne Mouhamadul Falilou moom Cheikh Mouhamadul Mourtala mi nga xam ne moom la sunu borom teg fële ca deqale di barabub Serigne Mor Anta Sali Mbacké mu am yéene ju ci liggéey ko foofee ca deq le ci ndigal loo xam ne sëriñ Mourtala waay juróom wa moo ko joxoon te moom lépp lu muy def mu di ko def ci ndigal moo tax mu dem ci xalif général de Mouride waxtaan ak moom yéene jëm mu am ca le mu boole kook jëwriñam di ji sëriñ Mouhamadul taxaa mu fas yéene yëkkati ay kàddu jëmale ko ci liggéey boobu nu di ci santaat sunu borom bu baax ndax xam ngeen ne bëkk démb rek lañu bàyyi ko poroxaan di dëkk bu tedd ba nga xam ne fa la soxna jaaratullahi Mariama bu so nekk bu nu bàyyi koo poroxaar nag dëgg ma li deqale loolu dal la xel sedd na xol te mën naa dëgëral yaakaar kon nun ñëpp nu àndu déglu cheikh mouhamadul muntaxa moom cheikh mouhamadul bachir mu yëkkati kàddoom ci ndigalul xalif général de mouride sëriñ cheikh sidi muxtaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki julli yi bokki taalibe ni ko suñu Omar waxee rek la desiwaat nañ fii ci ndigal eh, eh, noonu ko suñu Omar waxee eh, Cheikh Mouhamadou Fadil mi Cheikh Mouhamadou Mourtada moom la yàlla dogal mu nekk ci barab boobee nga ne borom cër bu rëy yàlla dogal mu dëkk moom foofu ci ndigal mu boo ba mu fa nekkee ba léegi itam mi ngi def kem kattanam ci lépp lu dundal ba ak sa jamono yii nag mu amoon yéene ju rëy ju rafet dem ci sunu kilifa ñëpp moom Cheikh Sidi Mokhtar waxtaan ak moom. mu jox ko ndigal ci mu mën nëkk am ndigal jog ci barab ba eh, àggale fa yéeneem fas yéene eh, ku baax koo gi nga xam ne moo fa nekk di borom cër bu rëy tëdd fa yàlla mu dogal mu mu dëkk ak moom loolu moo ko indi yéene jooju bëgg eh, liggéey barab ba ba mel na mu war a mel mu def it kër maam war a muy eh, xalaat ju rëy yoo xam ne eh, ñëpp la ko defal eh, jawul Sëñ Tuubaa gépp la ko defal bëgg fa itam def gannaaw defal barab ba ba mel na mu war a mel mu bëgg faa def kër maam maam war bëgg fa it dafa daaray alxuraan loolu nag di eh, yéene ju rëy ju rafet di yitte ju rëy rëy ju mat sëkk eh, loolu moo tax eh, ñu ñëwee ci ñëpp yi dem Seex xam ne yéene jooju yéene ju mu nekk ci moom bu jóg dem di ci waxtaan ak kilifaam loolu rek la fekk ci kilifaam moom itam moo tax nag mu daal di koy gaaw jox ndigal euh, joxaat ko ndigal mu ñëw ci man ma jottali ay kàddoom jëmee ko ci bokki taalibe bi yëpp bokki jullit yëpp euh, ndax loolu lépp daje itam liggéeyu Sëñ Tuubaa rek la euh, bu bu bu bu jaadu. yéey bu mat sëkk bu rafet loolu kon dafay daal di mel ne moo am tawféex ji xalaat ko waaye njabatu Sëñ Tuubaa gépp la ko bokkal kon nag ginnaaw noonu la deme sëñ bi itam joxe ndigal ci ñu jotle ko taalib yëpp jotle ko jullit yëpp loolu day tegtale rek yëm ci jublu mooy nu ànd ak moom yéene joojee xalaat joojee ak yitte joojee ak liggéey boobee nu ànd ko moom ba mu jeex tàkk ndax nun euh, taalibe bi moom euh, liggéey liggéey rek ko fi bàyyi euh, liggéey Sëriñ Tuubaa moom rek ko fi bàyyi kon nag ginnaaw mm, am na tawfeex ju ju toll noonu ba loolu agsi ci moom yitte jooju agsi moom àgge ko kilifaam kilifaam itam eh, jox ko ndigal eh, jot loolu wax na naa jot li ndigal loolu eh, naa ko jot li bokki julli yëpp bokki bokki taalibe ñu xam ne loolu moom ñun ñëpp mm, noo ko bokk moom kon mm, li bi jublu rek jot ligi kàddu yi ci mboolem mbokki jullit mboolem mbokki taalib yi dafa jublu rek nu ànd nu ko moom xam ne noo ko bokk nu ànd ko moom euh, ba mu defe ko euh, ni mu ko bëggee ni la ci la la cay xalaatam lépp euh, mu defe ko na na na ko xalaate lépp nag ci kaw ndigal muy ndigal loo xam ne itam ni mu bokkee ni mu war a bokkee xalaat ji bokkee ko yéene ji noonu la war a bokkee jëf ji kon nag euh, noonu rekk la euh, ne ko ñëpp déggee noonu bokk jurit yépp bokk taalib yëpp ndax euh, dëgg la boo xam ne ñépp ko bokk waaw kon na ko xamee noonu te fas yéene ànd ak moom ba mu amee ko ni mu ko bëggee mu liggéey ko na mu ko bëggee ba lépp sotti loolu. kon itam alhamdulilah euh, wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu euh, mbir la moo xam ne euh, jur yëpp ko bokk jël jur yëpp ko bokk waaw kon nag dañ ko déggee noonu bu baax te xam ne moom rek la ko bi defee rek la murit moom bon moo ko fi bàyyi kon nag beneen liggéey mu ngi noonu ñor xomm bu rëy lool mu rafet lool euh, moo xam ne ñëpp ci am yéene ñëpp ko bokk ni ko ni ko ni ko ni ko Cheikh Mahamadou Fadil Cheikh Mahamadou Mortala ni mu ko xalaatee rek euh, mooy mooy mooy borom tawfeex ji waaye moom ñëpp ko bokk kon ñëpp nañ ko déggee noonu te ànd ci ak moom suñu kem kattan ba mu amee ko ni mu ko bëggee waaw loolu jëf kon mbokk yi dégg ngeen woote bàngoog ni ko sëriñ bi waxee lu jekk la lu jaadu la lu war a na yàgg am la sëriñ bi itam nag nga xam ne mooy xaadimu rasul junjoon na ko ndax ci am njàngaleem leeraloon na ne barab bu way juróom bu jigéen wedde barab bu siiw la waaye barab ba way juróom bu góor wi itam barab bu leer la la koy tax a leeral leer googe nag la koy firndeel mooy yéene sëriñ fàllu mi mu jaar ci ay kilifaam sëñ bi yëkkati kàddu gi ñun ñëpp ñu war koo ànd ak moom sëñ Mor Anta sëriñ daara la woon ab siin la woon kon barabam fu mu ne fu waay toll war nga koo séen loolu mooy yéene sëriñ Fallou noo ngi koy ñaan yàlla defal ko ci ndam ci barke Serigne tubaa liggéey baa ngoogu na ko ñëpp jàpp te fanoo ko ni mu ko bëggee ñëpp jàpp ci ànd ko ak moom ni ko Serigne taxa waxee ñoo ngi sant bu baax di leen ñaanal yàlla gën leen fa yàggal ci barke Serigne Touba. rafet nañ si njort bu baax nag ni mu ko bëggee rek la koy amee kon moom du tee nag nu ñaan rek rek ci baaxu Serigne Touba. Euh, tawfeex jooju mu am tawfeex jooju gàttandu ko nu euh, ànd ko ñun ñëpp ba mu ba mu defe ko ni ko bëggee rek. <laughs> jërë ngeen jëf. amiin